Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres euh, du conseil municipal, chers imams, chers notables, chers frères et sœurs de Pikine Nord maa ngi teewe fay tey jii fii ci turu son excellence ambassadeur de l'état du Qatar ñu di ko woowee Mohamed Kordé Al Marri moo ma yebal pour nu ñoo def ci distribution ay yenn panier ci ramadan bi pour population Pikine Nord jubluwu ci leneen lu dul jéem a woyofal cherté de la vie bi nga xamante ni ñëpp ñu koy jàmbat te itam ñu dëggal solidarité islamique bi nga xamante ni moo war diggante jullit yi ndaxte weer yu ñu nekk di weeru koor faral dañuy faral di ko wax mooy weeru promotion ci wut ay tuyaaba loolu moo tax ñuy topp ndigal loolu nga xamante ni nag mi ngi jóge ci sunu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ndogu pañe yi ñu indi nag fa am benn association bu nekk Qatar bu tudd Fonds qatari pour le développement ñoom ñoo ñu ko jox mooy ñoo ko jox waa ambassade pour que ambassade bi distribuer ko lii day wane solidarité bi ma waxoon diggante jullit yi day wane itam taxawaay bi nga xamante ni moo am diggante Qatar ak Sénégal Qatar tabax na fi ay hôpital tabax na fi école bu mag a mag ñu ngi financé ay yoon ay tali loo xam ne daal Qatar mi ngi koy def xam tubaarkàlla daal baax na ñu ngi ñu ngi góorgóorlu daal ci Sénégal et lii yëpp nag ñu ngi koy defee ci vision wu Cheikh Tamim Ben Hamad Al Sani mi nga xamante ni mooy buuru Qatar ak son excellence le président Macky Sall mi nga xamante ni moom tamit koleeram la te ñoo bokk di ko di ko xalaat di ko jëmmal.